te nee naa leen fii ci Sénégal ku mu neex noonu la ku mu naxari la la réponse sénégalaise pour ñu génn ci la réponse elle est xadimique sëñ Touba la. loolu loolu leer na léegi Serigne mhm. ne cherchez pas un autre modèle. l'Inde a été sauvée par Gandhi. la Chine par la Chine par l'Arabie Saoudite par le prophète Mohammed. la France par le délinquant de Gaulle. ici c'est sëñ Touba. alors loolu leer na professeur. léegi dañuy ñëw sëñ Touba moo yore solution bi leneen loo leen wax dooleen leen dem. leneen loo leen wax doo dem parce que vous êtes des complexés gëmu leen seen bopp xamu leen seen bopp. sëñ Mountakha war na leen affaire yi sëñ Mountakha vous a tout montré. léegi daje na Sénégal. def na université def na man sànq ji la. la solution du Sénégal. je signe je persiste c' est sëñ Touba Khadim Rassoul. léegi leneen loo leen def da ngeen def seen bopp. beneen bi ma koy daaneel rek mooy. bayit bi nga xam ni ci suba laay yam ci moom bi ñuy durus ci xasida day muy bayit bu yéeme eh, ak contexte bi nga xam ni ci lañ nekk di ko dund nga xam ni àdduna bi yëpp loraange daj na fi loraange daj na fi muy tawat ji sëñ bi wax ni nag isa durru amman naasa turran ku fiituhu wa yanxu li xayril hawla fii kulli ahwaali bayit bi bëgg naa sëñ Maxtaar nga jël ko jullit ñëpp teg ci seen bët muy bayit bi ci suuf Cheikhul Xadim di wax ni isa durru man naasa turran ku fiituhu saa bu saa boo xamee ni loraange loraange daj na kàpp doomu aadama yëpp turran bàyyiwul kenn nee na ku fiituhu man cheikhul xadim man moom fegeleef na ma ko loraange googu du yegsi ci man dañ ma koy fegal maak sama njaboot wayan xooli xayril hawla fi kulli ahwaali te luy tiital lépp lu ñuy tudd rek muy tiital mën a tiital doomu aadama moo xam ay kaala yu ñuy déclarer chaque jour naan cas contact communautaire ak nit ña di ca tiita tiitaange googu moom feneen lay jëm fu dul ci man Cheikhul Khadim wa yanxu li xayril hawla fi kulli ahwaali loolu nag moo feeñ ci bis bi ndax muridi bu fekkoon dañoo tiit ci communication yi ñuy jaarale ci médias yi réseaux sociaux yi mbooloo mi du fi daje tey waaye tiituñu amuñu amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy ragal loolu nag mooy lii sëriñ bi di junj na di wax ni tiitaange moom feneen la fu dul ci man Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul tey loraange saabu daje kàpp nit ñi man moom fegaleef na ma ko man Cheikhul Xadim muy bayit bu yéeme boo xam ne nii daanaka mën nañ ni mooy bayitu bis bi.